voilà daje bi boo ko gisee mooy euh, jeune daaru yi dañoo dajaloo li ñu doon saytu mooy dañ doon saytu li nga xamante ni mooy bindu bi xool ndax jaar na yoon wala déet waxtaan nañ ci nag def nañ synthèse suñu biir xool nañ ne bindu bi jaar na yoon te incha allahu rabbi li nga xamante ni mooy suñu yitte mooy def li nga xamante ni nii moom lañ war di def à chaque fois muy jàppale ki nga xam ne mooy monsieur Aliou Sall maire de la ville de Guédiawaye mu toogaat fi nga xamante ni mooy place bi mu toogoon ndax bi mu fi toogee ba tey wax dëgg yàlla gisuñu lenn loo xam ne lu ñuy rëccu la maanaam lu ñuy rafetlu tout le temps la ñuy gis te gis nañu il ménage il euh, ménage aucun effort pour la l' avancement de Guédiawaye parce que la ville de Guédiawaye boo ko gisoon avant gis ko actuellement di nga xam ne def na fi dara nit nag nit nag warul bàyyi opportunité mu dem parce que nekk Aliou Sall fii ci Guédiawaye ñun suñu opportunité la te nit ku nekk yaa gën a xam li nga bëgg yaa gën a xam li nga bëggal sa gox te nit ki bu fekkee am na loo xam ne bëggal na ko goxam actuellement muy fii nga xam ne mooy ville de Guédiawaye day jëlaat Aliou Sall bu soobee yàlla au soir du 23 janvier 2022 euh, tegaat ko fi nga xam ne mooy maire bi mu mën a yeggale li nga xam ne moom la tàmbali ñu ànd ci nag ak kan suñu camarade suñu nit euh, monsieur Ablaye mbay ki nga xamante ni tëddul noppalikuwul benn yoon tàyyiwul aussi ci li nga xam ne mooy dimbali monsieur le maire de la ville Aliou Sall ñun Abdoulaye Mbaye mooy suñu maire kon fu ñu taxaw rek foofu la taxaw lu mu ñu wax aussi loolu la ñuy def waaw réunion bi tey li ñu li ñu taxoon a daje moom mooy ñu xool ci bindu mi lañ jógee doon ñaax nit ñi pour ñu dem bindu ji bi ñu xoolee ci liñ ci liggéey am nañ ci yaakaar bu baax a baax beneen point bi moom mooy candidature monsieur le maire aline Sall ci Guédiawaye parce que comme li may wax chaque jour rek Aliou njëriñu géejawaay la naam su dee waa géejawaay dañ ko koy joxaat sax ñun dañoo war a def effort waruñu toog di nelaw ñun nag xaaruñu kenn maanaam mais moom ñu ngi woo ñëpp te defe naa ndaje bi kenn du wax ni yëguñu ko fii ci Daaru Salaam dajale nañ jeunes yëpp ñu ñëw maas ñu waxtaan ci li ñu war a waxtaan xool nan la ñuy def pour jëlaat deuxième mandat teg ko ci monsieur le maire Alioune Sall ci loxoom xam ne géejawaay moom la ñu bëgg ñëpp moom la ñu bëgg. loolu moom ñu fi taxaw na indi. waa ñun ñi ñu ngi bokk ci coalition bi ñu ngi nekk ay jeunes nekk ay responsable tamit fii ci Daaru Salaam parce que tey jii ci commune Daaru Salaam moo def xëy na comme ni ñu defee keneen dina def keneen dina def defe naa ne ñun ñëpp lu ñu war a ñor moom mooy àndandoo booloo nekk benn ngir tabaat monsieur le maire Alioune Sall moom la ñuy woo woowuñu kenn ci xuloo wala ci ŋaayoo wala ci séparation déedéet ànd koog sunu frère nag Ablaye Mbaye

vu que nous avons initié une série de rencontres et d'échanges avec euh, nos amis, nos parents, les amis, les sympathisants et les militants du parti, et également de la grande coalition Ben Yakar, pour discuter sur les prochaines élections. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, euh, nous rendons grâce à Dieu, nous avons unanimement décidé de porter et de défendre sans embâche, de vivre et de manière solennelle, la candidature de à l'UNSAL pour les, pour les prochaines euh, élections locales. Alors, euh, nous avons également décidé, à la suite de cette rencontre d'aujourd'hui que nous avons tenue ici, de continuer le travail sur le terrain, de continuer à sensibiliser de manière euh, dynamique et progressive l'ensemble des jeunes, principalement les primo-votants, afin de les faire savoir le rôle important qu'ils auront à jouer pour ces élections euh, locales pour le développement de Guédiawaye. Le choix de ce n'est pas, dû au hasard. Parce qu'on on sait tous que depuis 7 ans qu'il est à la tête de la mairie, il n'a ménagé aucun effort pour améliorer le cadre de vie la population, des populations de Guédiawaye. Donc nous, nous décidons d'inscrire Guédiawaye dans la continuité avec euh, M. le maire Sall. pour enfin le développement tant attendu pour le développement, pour tant attendu pour Guédiawaye, qu'on puisse euh, la connaître et, la, le vivre. Euh, maintenant, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble des militants et responsables de Guédiawaye, mais également de la grande coalition, de s'unir et de faire en sorte que l'union des cœurs puisse primer pour qu'on puisse connaître la grande victoire qu'on a toujours connue au soir des élections locale du 23 juin, Inch'Allah. Merci beaucoup.